waat na jëmale ci acteur yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bu transport ñaari kaar Ndiaga Ndiaye ñoo doon njëkkante ci autoroute à bi daal di daanu ba mu am si ñoo xam ne dañ see jëlee ay gaañu gaañu mu doon accident boo xam ne nag dafay fàttali comportement bu bon bi nga xam ne chauffeur yi am nañ ko ci kaw tali bi. moom ku ci nekk war nga mën a xam yow soo nekkee ci kaw tali lan nga war a mën a def waa mais man li may gën a kaas ak li ma gën a ñor mooy côté transport bi vraiment ñun sonn nañ heure yi la ñuy wàcc yenn saa ñu wàcc 19 heures yenn saa ñu wàcc 18 heures mais chaque jour problème oto la am. waa ji moom nag chauffeur bus Total mu ngi ŋàññi bu baax attitude bi nga xam ni ñenn ci ay naatangoom dañ koy faral di am. am na ñoo xam ne ni nag maanaam dañuy eh, sellal am na ñoo xam ne dañuy salte parce que métier moo gis am na muy sawaru taxi baag dem dikk baag yëpp mais ñun moom wax dëgg yàlla ah duñu tàgg suñu bopp waaye suñu métier moom ko fayee. laaj bi samp nag mooy nan la chauffeur yooyu di def ba am permis ak comportement bi nga xam ne moom la ñu yor doon na ab pièce boo xam ne ñu ngi koy jot gannaaw ay weeru formation bu ñu sukkandikoo ci chauffeur bi. mais maanaam permis dañ koo tar bi ba pare door koo am mais nit moo nitu oto moo amul ndey amul baay waaye ñun lañ jàng ñu ngi koy teg ci yoon. client bi taxaw naan la kii permis bi ñu koy joxee nangam sangam moom moom boo ko joxoon permis xamul permis bi poids lourd la xamul bii léger la xamul bee lan la. donc ñoom ñoo am seen i wax yi ni ñuy waxee rek di ko wax. accident yu bëri yooyu nag moo indi woon débat bi ci taxawal li ñuy wax permis à point waa ji nga xam ne chauffeur Ndiaga Ndiaye la mu ngi xam ne ne ñu ngi koy xaarandi ak nu mu manti demee. lu ñëw rek baax na na na tegu ci yoon rek lu ñëw rek pour man bokk mën nañ koo gérer quoi. Sénégal moom industrie xam nga ne moom bari na fi ci côté yëpp. doon na mesure boo xam ne nag dafay dissuader yenn ci ay chauffeur waaye itam dina wàññi li ñuy wax insécurité routière. bu ñu ko waxee chauffeur yi nga xam ne duñ ko teg ci yoon la parce que ñu jox la oto nga yeb presque ay cent personnes kooku war nga mën a comporter au comportement boo xam ne nii doo leen tayle li ngay def nga di ko teg ci yoon. ci lu ñeel code de la route bu bees bi agence national de sécurité routière xamle woon na ñaari at ci ginnaaw ne dinañ taxawal li ñuy wax permis à point waaye disposition boobu nag dina xaarandi ndaxte ñu ngi ko nar a ci atum deux mille vingt cinq